Cham notaire xaritu Gakou di nag di nuyu tamit tubaab di chef de cabinet bu maire Sam ñu koy nuyu tubaab nag suñu xarit la yàlla na ko yàlla defal jàmm kooku ne dafa bëgg Gakou ba mu jeex tàkk man tamit ma bëgg Gakou ba mu jeex tàkk te laaxatuma dara Gakou sama doomu ndey la sama xarit la di nuyu tamit waa kër Baba Diaw itoog ñoom nday Awa ñoom Mati ñoom Mamou Cissé Mamou Cissé ñoom Rougui Cissokho Dim ñu leen di nuyu di nuyu waa France ñoom Amina Fall bu Buntu Carrère ak Marietou chéri Adama Diallo ak Rama chéri Omar Anne ñoom ñëpp ñu leen di nuyu di am mbégte contentement ci waa jàmm gën guy jaksaaw ñoom Alpha DJ LG madame Ba Jamenetou Diallo ak jëkkëram ñu naan ko monsieur Ba nekk ci sonateel di nuyu tamit euh, foofu waa Malika cité Sonatel nuyu nañ Gilles ak Binet Diallo Didier Rakhou ma ca France gérant Titan ñu koy nuyu ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte contentement ni ñu def nag moom mooy Pierre dem seeti éleveurs yi nga xam ne ñoom dañoo mere Aminata Mbengue Ndiaye di ki nga xam ne moom mooy Jean Pierre François Euh, da Silva di koo xam ne nag moom mooy le président des éleveurs yi nga xam ne ñooy yar mbaam xuux yi nee na nag mere nañu mag euh, ki nga xam ne mooy Aminata Mbengue Ndiaye ndax subvention muy wax yëpp ko jëlee ci jur yi nga xam ne moom mooy xar nag ak gëlëm te fàtte mbaam yi moom loolu da leen metti ñu fàtte leen mbokk ne ba tey yéen a ngi ànd strong shake bi nga xam ne moom moo neex <laughs> saabu baa ngi nii mooy setal pokotaan mayonnaise armanti ak saabu xmet bi nga xam ne jar na 14 milliards mbokk yi nii moom mooy seeti mbaam et eh, Pierre wan ma mbaam la temps ma egg si pas François <laughs> xooleen mbaam yi waay waaye mbaam <laughs> mbaam <laughs> yaay waaye mbaam yaa ngi nii Pierre Pierre sa copain yaa ngi nii eh, eh, kii nga la Antoine eh, Antoine xool sa waay xool Tony Tony Tony Grand Yoff ka yango ka kalambulamba buru jende kalambo ta kalambu nono a kai ma so ke kalambulambo kalambo ne ba cho na kalambulambo ma kilama mbaja silama yo alhamdulillah buru jende bata kala betiya betibat asikolongsi mbaajaajuki nankombude banankotong sinkocoke banankotong mbaacukumcuko banankotong burujende sinke bara coran yo kuna kom kono coran kun coran te kara kum kun to kara kun ko par ko gomis <laughs> bunu ko nanga tan amina tan be nyaay e. bunan kun tunne amun tan be nyaay sumbalim ko mbajum ko ni mbunje burujende mbang ko ngan mbam on kombe anjak am kombe anjak anjak um kombe anjak boni kumbanu kumbanu kumbanu kumbale ko anun tambo ni ndambo tamba ma tukunu ko brojende usubal yeles ginnaaw taw amul ñoom amin ta mbeng njaay mu ngi wax ne ñun éleveurs yi mu ngi wax nag fas béy gëléem ak xar moom xamul ne sénégalais am na ñoo xam ne dañu yar mbaam ñun njaago yi boo ñëwee fii gis nga bii il faut ñu yàkkal Aminata Mbengue Ndiaye suppu mbaam ak cere baase mbaam ak yaasa mbaam mu xam lan mooy mbaam mi nan ko du yoon baykat bi mu ngi jooy sàmmkat baa ngi jooy pourquoi ñun sàmmkatu mbaam yi ñu jël du def subvention muk muk muk moom dafa jël rek ay subvention jox ka yi loolu am na éleveurs yu bari Gomis Pereira Mendy Kambajo yooyu yàpp dañuy def am na yoo xam ne du ñu yàpp ay mbaam yu bari di dem ba jile bi saawoo di jaay ñun soxlawuñu dara waaye ñu yëg ñu rek moo tax ñun dañoo mer mer mer mer mer mer ba ci kanamu yàlla c'est pas normal waa Bignona marché Grand Yoff ñëpp mer nañu parce que amul subvention pour mbaam yi te problème mu obala bi war na yàlla mbaam da ko faj ku lekk mbaam du amee wala mukk jàngoro du am mbaam saf naa mbaam yomb naa mbaam neex naa xar seer naa xar jafe naa xar manqué naa xar seer naa xar jafe naa xar manqué naa mbaam yomb naa mbaam seet njaay yaa ngi def loo ne boku ti iti ka jɔ mi nyango kuma ni kimba yo kumba tuma na mi tɛ na ba na ba kɔn ne bra mi nuna bun buru na nga ani kun tu anga buru jende pa kun kun ta da buru jende mana ka fɔlɔ kɔn na ka jɛ ka kɔ kɔ ma ya mɔ nɔ ya gi nga gɔ buru jende nu na buru jende. buru jende baata moo ne ma coo faka bu dee pël la dafay jël bant def ko fii ñun njaago yi bu ñuy sàmm suñu mbaam pël bi dafay sàmm mbaam naan gay naago waaye ñun du ñu wax gay naago da silva silva silva sikona ko silba silba mbayo ko hin oh, mbaa baa booba ñun bu ñuy sàmm nag bu ñuy sàmm suñu mbaam yi dañuy way ci montagne yi Guinée Bissau sama no ba moy wo mbaaya balante wo mo sama mbaaya asi korongologo sama mbaaya o oh, malago sama mbaaya bu réeree sa mbaam bu réeree da ngay def gan mbaam pour mbaam wala mbaam a ah, mo kama wo ma fogo kako buru jende ala ma ka soge aga kon kara buru jende ala mona ma cokolo kala buru jende